billahi samil alim min alcheytani rajim bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi jàkkaarloo ci seen chaîne bii uh, gént ci tiktok ñu ngi leen ci asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey ñu jukkil leen uh, ci Firi Guent war a waxtaane gént dof uh, nit ki nga xam ne dafay nelaw gént dof loolu lan lay nekk wala mu gént gis nit mu dof la lay tekki wala mu gént ay dof wala mu nekk ci hôpitalu dof loolu yëpp bu ci nekk lan lay lan lay fii ci ñëw bu baax a baax ci ak yaatal daal di koy tegtaloo nag ci euh, maanaam firikatu gént yi liñ ci wax euh, moo xam ay nit ñoo xam la wala ay xale wala yu mel waaye balaa boobu yow mi ñuy seetaan bu fekkee abonné goo ci chaîne YouTube bi ñu ngi lay ñaan nga bës abonné mooy bandeau bu ñuul boobu nekk ci suuf booy seetaan bu nekk boo ko bësee rek abonné nga bul fàtte tamit euh, di like vidéo bi mooy loxo boobu def nii boo ko bësee mooy aimé nga ko euh, bul fàtte tamit di ko partagé ndax njëriñ bi gën a yaatu boo bëggee ñu firi sa génn da ngay woote ci numéro boobu 77 943 77 41 danañ la condition yi ngay jaar pour ñu mën laa firi sa Euh, bu ko defee rek euh, borom firikatu xam-xamu firikatu gént bi ñuy wax naabil si euh, nee na nga gént gis yow ci sa bopp nga dof di def ay yëfu dof kooku day firi alal joo xam ne danga ko am waaye ci miiras lay firi maanaam alal joo doonee ci nit ñu fàttali leen ne kon gént dof dafa am relation lool ak wërsëg Euh, relation bi mu am ak wërsëg nag euh, maanaam yaatu na trop li ci ëpp daal wërsëg lay firi incha allahu taala moo tax dana ñëw ci waxtaan bi bu bëri kon dana firi ne danga am alal joo xam ne ci miiras nga koy jëlee ci doon euh, wala ay yére ak ay col yoo xam ne da ko amee jëlee ci miiras moo xam ay or la ay yére niki noonu tamit gént dof dana firi ne alal bi bari da nga ko am doonte sax jógeewul ci miiras ci kem yow na nga dofee rek ci gént gi dof gi noo gën a rakkaajoo ci gént gi rek mooy alal ji noonu lay gën a bëree euh, waaye nag alal jooju mooy danga nga ko dépensé ci yàq danga nga ko yàqu euh, ànd ak ay àndandoo yu bon yàqu ko loolu lay fii euh, Ibnu Siray di wax na ne gént dof kooku dana firi ne da nga am martaba bu kawe maanaam da nga am daraja bu kawe boo xam ne nit ñëpp danañ la bàyyi xel Euh, moo xam ci sa liggéey la bu fekkee kuy liggéey la mooy da nga am ay promotion yu kawe da nga kawe ña ngay liggéeyandoo ni ki tamit bu fekkee koo xam ne day xëcc nguur la politicien la wala koo xam ne dafay yëngu ci wàllu nguur mooy kooku dana ci am lu kawe jortam euh, ni ki tamit ñu ne gént euh, gis ay nit ñu dof wala kenn ku dof kooku tamit mooy kooku nga gént mu def mooy alal joo xam ne dana ko am ak tedd nga ak àdduna boo xam ne moom dana ko am comme nga xamee ne gént gis ku dof dana firi am ay mbégte yoo xam ne ay bànneex yoo xam mu dana ko am ak ay euh, contentement yoo xam ne danañ ko dund dana ko dund moom ka xam ne moo dof moo xam yow la wala keneen ki nga xam ne dafa gént euh, gis ne dafa dof Euh, waaye nag ci dof bi moom ci gént gi ndof gi da kontaan ah kooku mooy dana lekk alalu riba alal yoo xam ne lewu ko ni ki noonu tamit gént euh, dof euh, bu fekkee yow yow mi ko gént kuy def lu baax nga di jéem a góorlu mooy yow dana firi ci yow aljanna boo dee dafa dugg aljanna gént ki nga xam ne dafa génn àdduna nga génn gis mu dof sa mbokkum génn àdduna nga gént gis mu dof kooku day firi na kooku dana dugg aljanna insha allahu taala hakaza ndax moom lan moo tax eh, ku dee moom lam nekk léegi passé na xel ku dee la muy dund ak la mu nekk xel mënu ko jot xalaat moo tax boo géntee gis mu dof rek mooy dana firi ne moom dafa dugg aljanna dana dugg aljanna eh, ni ko tamit eh, gént gis maanaam xale boo xam ne majeuragul mu dof moom ci boppam bu géntee mu dox mooy firi ne papaam dana am xaalis dana am alal yu bëri waaye loolu du appliqué ci xale waaye ci way juróom lay appliqué bu fekkee yaayam lay dund rek mooy yaayam dana am yu bëri yu lew euh, ni ki noonu tamit jigéen gi nga xam ne dafa gént dof euh, kooku day firi na moom dana dund naataange dana dund dund bu neex insha allahu taala dana firi lu ni mel moom ci dana appliqué wu ci moom ak ci famille ak ci borom këram bu fekkee jànq la euh, ni nga xamee ne tamit gént ndox dana firi mbëggeel dana firi cofeel euh, rawatina bu fekkee ne ca ndox nga da ngay def ay geste yoo xam ne day firi mbëggeel ak cofeel rawatina euh, gént ndox dana firi ne ay dóor yu métti danañ la ko dóor maanaam moo xam dóoru dóor yoo xam ne zahir la mooy dañ la koy dóor wala mu muy firi dóor yoo xam ne maanaa la mooy ay problème ay jafe-jafe yoo xam ne da nga ko dund ci sa gént Euh, ni nga xamee ne tamit euh, géntu dof dana firi ay jëf yu baax ay jëf yoo xam ne jëf yu yiw la euh, yoo xam ne loo xam ne lu baax la gént gis xale boo xam ne majeure gu moo xam bu góor wala bu jigéen ay xale yu bari nga gént gis ñu dof kooku dana firi ne ñooñu seen famille danañ am alal yu bari ñu lew gént gis jigéen goo xam ne dafa dof wala jigéen gi ci boppam mu gént mu dof moom dana firi ne euh, moom bu fekkee bi mu koy gént boobu célibataire la ah dana am ku ñëw labat ko koo xam ne daal incha allah dana sedd xolam bu fekkee ku am borom kër la nag moo ko gént euh, kooku day firi ne euh, dana firi ne bu fekkee amagul doom mooy dana ëmb dana am doom incha allah wala boog situation dana changé jëm ci loo xam ne lu gën la lu rafet bu fekkee ku ëmb jigéen ku ëmb moo gént ne moom dafa dof wala doom ji mu ëmb def kooku dana firi maanaam euh, ne dana am doom ci jàmm ak salaam te du am benn complication du am benn jafe-jafe. ni ki noonu tamit euh, xale bi nga xam ne dafa gént moom ci boppam mu dof euh, kooku ba pare mu mu mu bëgg ci gént gi kooku tamit dana firi lu baax bu fekkee nag dafa gént dof di làmbatu xamul fu mu jëm mel ni ku réer hakaza euh, kooku tamit dana firi lu baax ki nga xam ne dafa gént ba léegi gis benn waay mu dox koo xam ne ku xam la wala xamu ko ah kooku euh, mu mel ni sax dañ koo yeew wala dañ koo takk ah kooku day firi liberté boo xam ne kooku dana ko am rawatina nag bu fekkee da koo ragal Euh, loolu tamit nga génn ku dof dana firi ne yow danga nga mucc bu fekkee sa noon la da mucc ci am pexe euh, wala moom dana mucc ci pexe noonu wala dana mucc ci musiba moo xam ne jógee na ci ay ci ay noonu ki nga xam dafa génn toog ak dof wala mu toog ak kenn ci koo xam ne euh, ñoñam la mu am ku ci dof ah kooku su boobaa day firi lor boo xam ne dana am jëm ci waa ji nga xam ne da ngaa génn da ngaa gis benn waay mu dof nga toog ak moom euh, wala moom ak soxnaam moom ki def ak soxnaam wala famille ñu toog kooku dana firi ne euh, mën nañ am benn laraange boo xam ne moom moom mooy nekk sabab bi nga gént nekk ci hôpital ñi nga xam ne dañoo dof nga nekk seen biir euh, ñuy def ay mbir yoo xam ne yu étrange la yu tumuraanke la wala ñuy def ay yëfu dof Euh, ñuy def yëpp yoo xam ne ku àndul xelam moo koy def kooku day firi ne contentement la ak mbégte goo xam ne dana am ci dund bi te danga ko bokk ak ay nit li nga xamee ne bu fekkee da ngaa génn toog ak ay dof di jaxasoo ak ñoom di lekkandoo ak ñoom di ak ñoom di defandoo ak ñoom yu bëri euh, wala sax nga leen jéem a toppandoo kooku lu baax lay firi loo xam ne dana am te dana matale dëkk ba nga nekk yëpp incha allah danañ ci lu baax wala sax sa famille incha allahu taala kooku loolu lañ fi euh, hakaza euh, nit ki noonu tamit góor gi nga xam ne dafay nelaw bu génn gis soxna su dof jigéen bu dof kooku day wane àdduna ak ay bànneexam yoo xam ne dafa am jigéen ci boppam day firi àdduna ci gént rawatina boo géntee nga ci gis ko mu tax nag muy àdduna boo xam ne daal dana la publicité dana ñëw ak doole te dana neex lool lool lool incha allah taala nga xam dafa gént gis jigéen bu dox mu jublu si ci moom di dox jublu ci moom mooy àdduna dana dox jëm si ci yow incha allahu taala ànd ak wërsëg ànd ak alal yu bëri ànd ak ay doom yoo xam ne da ko am ki nga xam dafa génn gis jigéen bu dox muy daw euh, mu lay daw euh, wala ginnaaw kooku ñàkk la boo xam ne da ko ñàkk yow incha allah wala dund bu naqari boo xam ne da ko am ci sa dund euh, yow ko jigéen dangaa gént jigéen bu yow nga dàqe ba dab ko ah, kooku dana firi ay ay balaa ak yoo xam ne da ko am ci ci sa àdduna àdduna daal dana la euh, bu fekkee nag dangaa gént gis jigéen bu dof yow nga di ko ragal ah kooku mooy da am alal bu bëri da nga da nga heure ci sa gént incha allahu taala ah, bu fekkee nag ci gént gi ragal nga ko mais jox nga ko dara ah, kooku maanaam wërsëg woo dana gaaw a ñëw texe googu dana gaaw a ñëw ki nga xamee nag day dafa gént di daw ak dof waaye nag ah, waaye dafa mujjee jàpp ci loxo dof daal koy yóbbu waaye ci loolu yëpp moom mi ngi tiit mi ngi ragal kooku maanaam dëgg boo xam ne da ko dëgg àdduna waaye da am dund boo xam ne dund bu sax la da nga am da nga am loo xam ne dafa say aajo ba doo soxlaal kenn dara incha allah taala yàlla nañu ko yàlla may bu ko defee rek mbokk yi tey lii la woon ci seen euh, jotaayu fii ñu indi loolu leen ko doon wax ci gént dof wala nga gént gis ko dof wala nga gént euh, gis ñu dof euh, kon boo gisee relation bi amee ak ak da ngay xam ne kon lu ci am yiw lay firi incha allah taala kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen jotaayu firi gént fii ci firi gént TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu